ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر بعد سير القلب بالمصطفى الحب إلى حضرة الرب حرف الجيم وجماعة وجودا wujudan يا كرنا مطلع بي muy baraatul istihlaal buñ ko indee liñ ciy jàng du bari waaye waa ngi nii si jawaahir rasaayil waaye moom laa ci nii tam wayu wu yéeme la jamaata Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mi ngi ko defoon ci diggante 1963 jëm 64 cheikhul islam li ko waraloon mooy tukki ma 37 dafa xamante woon ñu bare bare bare ñam fa xamanteetoon nag daf cee bokkoon gaa ñoo xam ne waa Chine lañu léegi nag ñooñu dañoo jiite woon ay jamciya jamciya bu ñuy wax jamciyatul islamiya ca Siin mu nekkoon Pékin dégg nga jamono boobu nag Chine dafa jaxasoo lool ahdu Siton la Mao Siton mi nga xam ne 66 la dee at mi bàyyi dee sa déwén sa la Mao génn àdduna septembre moom la fa bàyyi radiyallahu anhu fekkoon yaa ngi dégg moom chia yi bëri fa lool dégg nga ko aljamiyatul islamiya as siniya ca Pékin ñoom ndeysaan daal di invité Cheikh Ibrahim booba gis-gisu laninisme laninisme te maanaam prénom aw laninun lanin moom dafa bëri woon daanaka moom rek lañ gëmoon léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo dajeeg cheikhul islam alhaaji ibrahim Niass radiallahu anhu benn waaye bu ñuy wax burhanu diin shahid burhanu diin waa Chine la dégg nga ko borom xam-xam la moom Shanghai la dëkkoon sax moom waaw naibu majlis shuyuux xam nga naka chia yi dañ bëri ay shuyuux yu mel noonu am na benn majlis bu ñu wax majlis shuyuux moom naibu rais la woon ca loola yaa ngi dégg cheikhul islam nag radiallahu anhu tukki moomu dafa dafa dafa riche parce que Baye daf cee jaar ci place yu bare bare bare bare bare nag boo déggee conférence ba ñu génne maa ngi ciy nettali na Cheikh al Islam tukki moom mu doon def nga xam ne bi mu ñëwee jugee Chine la mu jaar Arabie Saoudia fekk Beyrouth la dajeeg Amin Husseini Amin Husseini moo doon mufti bu Quds mu fa dajeeg moom Amin Husseini leetar bi mu bindoon Cheikh Ibrahima Niass mu ngi nii rabita alam al islam yi ñoo ko yónni woon ci Baye. وبندقو نكو فقط بعثت الأمانة العامة برابطة العالم الإسلامي لسماحتكم منذ بضعة أيام أمانة معناها بيرو بيرو بنا قمنا نيوم نيو سيق العالم الإسلامي تباي تشلا تش بوكون صح موم نيوم نيو نيو نيو بند دي بي أي فن وخنا نيو كتابا لليتر بوكم نتدعوكم فيه إلى اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر في موغاديشو dégg ko asimatu Somali yow ma gis nañu defe naa mooy capitalu Somali dégg nga mu ne ko dañoo bëgg sa teewaay yow ci ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko war a def ci muktamar bi ca asimatu Somali ñaar fukki fan la woon ak juróom-benn ci weeri rajab 1348 tolle la 30 novembre 1964 dégg nga mu ne ko. déggal déggal li muy wax baay rek daf na ko minhu alimtum wala rayba anna almutamar alladi antum min duamai min duaimihi sawfa yaqidu dawratahu sadisa bi awnillahi fi mogadisho yowma al israi sharif le 27 jo dégg nga ko amul sikki ci ne yow xam nga ne euh, amul sikki si ne mutamar bi seen kii boobu ñuy seen jotaay boobu ñu war a fas ci mogadisho ci bis bi nga xam ne isra mi'raj ci la bokkoon lettre am ba dafa gudd waaw waaye li ko Cheikh Ibrahima Niass tontu radiyallahu anhu le 9 novembre la ko bind lettre bi moom bi mu egsee Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu daf koo tontu ne ko maali Cheikh al mufti al amin al huseyni bi kulli asaf a'taziru li adami huduri maakum li haddi al aana li anni lam azal fi qabdati al hukumati saudiya wa qad xaruba ramadan wala yumkinanu sawm illa fi kawlax da nga ko maa ngi jéggalu ngir ne du ma mën a ndax ba léegi maa ngi Arabie Saoudia ngir nguur gi soxla guñ ma soxla te wéru kor jege sina te mënuma oré fu duut kawrax dégg nga ko ne ko hada ma an rabita ablagat ila algai qarar alladhi ittaxadu bi tashkil wafdin ila mujtamar wa binain ala hada an wasaltu ila kawlax ayyam fa sayati وفد ينوب عني وأرجو قبول عذري وأتمنى للمؤتمر كل نجاح ليسان تي شيخ الإسلام باي مونيكو Mm, ànd ak ne rabita bi macha allah li ñu war a jotal jotal nañ ko ci nii ñu doxalee mm, waaye man su ma eggee Kaolack dinaa ebal délégation boo xam ne ñoo may uutu maa ngi maa ngi ñaan ngeen nangul ma suma si ba bàyyi eggeel ebal ki nga xam ne mooy Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop loolu nag li tax ma indi ko mooy ni mooy ni tukkim Cheikh Ibrahima Niass ci Chine gannaaw bum ñëwee. dégg nga ko bi muy ñibbisi bi mi ñibbisi wax na fi mu jaar ba egsi Dakar dégg nga ko ci la ko leetar bii dab ci yoon léegi nag Cheikh Ibrahima bi muy déparé këram dégg nga bi muy déparé këram moom Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu ci yoon wii tukki mi dafa yàgg tukki mi dafa yàgg. parce que man dégg naa dégg naa oustaz Barham ne jamaata bi bi ko bàyyi di tàmbali mi ngi taxaw si buntu néeg tukki mu àndal sëñ oustaz ak ku ñuy wax Souleymane Kane am na ñeneen waaye ñaari ñoo si gën parce que maître Souleymane Kane dafa mënoon a wax français tukki mi yu mi daf si am ndax am na sax yoo xam ne bàyyi dañ ko daan bëgg a translator bu yi waxee ñu bëgg ko tek mu ne xam naa xam naa <laughs> si daan bëri mais xam naa ko xam yaa ngi dégg kon nag ci gàttal rek mu ne jamaata yonantu lay waxat da ko jamaata dajale nga wujudan tabe haybatan tabe olaf di ko wax tab tab mooy tabe rek waaw jamaata dajale nga wujudan tabe haybatan ak wegeel wa jalalan dégg ko ak jalaal tam jalaal ci xeetu wegeel yi la bokk waaye xëybatu marhaban oustaz xëybatu moom waaleykum salaam wa rahmatulah dafay ànd ak nit ki nag man jalaal mën naa nekk ci moom fekk sax ñaawaayam bi kenn mënu ko natt dafa ñaaw lool waaye foo déggee xëybatu rek waa ji dafa am wegeel bàyyi na wa jalaalan ak jalaal léegi nag moom loolu mu dajale yëpp bàyyi nees moo fexe mu ne moom wa absartu man ma gis ca biir wujuudu ga ak xaybatu ak jalaal ga ma gis ca ma gis min za tukkee ca loola bëx jatan taar wa jamaalan ak taar dégg ko bëx jatan moom la ñuy wax taar bu yanji jamaal moom tam taar la yaa ngi dégg Cheikh na ma gis ko ca biir yooya dégg nga cheikhul islam radiallahu anhu Mali gis nga tukki mi bi muy dem jaar na Mali jaar na jaar na Sierra Leone dégg nga ko déedéet lim la bëgg a wax mooy déedéet nekkul ne dafa jaar waaye Cheikh Ibrahima Niass ci biir tukki mi reex la Conakry boobu mu defoon ci biir tukki mi la ko la ko la ko way waaw aleykum salaam ci biir tukki la ko way waaw kooku ñu doon wax xaw ma seen du ma koy mën a tudd bu baax saa ma koy gën a man showing laay showing laay bi bàyyi di toog ci biroom dégg nga ko mu ne fekk na Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mi ngi ci defar rexle bi nga xam ne mu ko mu nga demoon ci ay réew yooyu noonu nga xam ne mooy bi mu tukkee nafaxaatul malikil gani fi siyaahati fi ardi Bamako wa Guinée dégg nga mu daal di ko tënk ca la tënk tam tukki bi mu defoon Nigéria waaw ci la tënk tukki bi nga xam ne ca defoon Nigéria tukki bi mu defoon Maroc mu daal di jël benn taalibeem bu tudd Muxtaar wuldu Hamidou nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci way Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass da nga ko Muxtaar def ci ay mbir. Cheikh tukki moom lu bare bare bare bare bare la ci lijjanti wa absartu min za bahjatan wa jamaalan bàyyi joxoñ ñoonantu ne ko jamaalu ko sattaar bi um sun wéttal la xëybatun wegeel la wa mahabbatun mbëggeel la fa anta ndax yow atammul mursalina yaa gën a mat yonantu yëpp kamaalan ci ak mat ndax wa kulluhum ñoom ñëpp xaada làq nañu almakarima ay teranga wal ola ak kawe waaye wa maakal imaamil hashimi kenn ci ñoom melut ni njiit ak ko jug Hachim gi xisaalan ci ay jikko Seydi Mouhamadul Busayri wax na yonantu ne ko fa innahu shamsun fa inna fa inna fa huwa fa innahu shamsu fadlin loolu la ko wax hum kawaakibuha yazharna anwaaraha linnaasi fi zulami Seydi Mouhamadul Busayri loolu la ko wax moom mooy jantub ngeneel bi mu ne yeneen yonantu yëpp ay biddiw lañu mukawakib ko dégg kon nag bu bàyyi waxee wa kullu ma hadal makarim wal ula wa ma kal imam al hashimi xisaala loolu dëgg ne ko muhammadu a dégg si jàngale ustaz baraam mu ne muhammad ku ko wax rek tagg nga ko ndax éviri bi nga xamee sax ñoom dañ ko mujj di ooye muzammam waaw yonentu naan ajaban li quraysh dégg muzammaman wa muhammadan mu naa ci Quraysh ñu ngay saaga muzammam taman maay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga bàyyi ne ko Muhammadu yow Muhammad yaa xayral anaami yow ki gën ci bindéef yi wasilati yow suma jokkale gi ci lu ma mën a jot xabaaka yal na may la ilaahi suma borom maa loo xam ne yëfuutu dafay faat maqaalan ci ay wax yonentu mbiram kenn mënu ko wax kenn mënu ko wax wa anta taw yonent Muhammad wa hëbta may nga albiida ñu weex wa suuda ak way ñuuli dégg nga ko fantaxaa daal di jublu ilayka ci yow xadimun liggéeykat boo xam ne raama mi ngi sàkku min ko ci yow mën naa ay may am nga ko de mu mel ne yonentu daf ko ne koo koy wax ci maanaan rek ngay expliqué mu mel ni ki muy wax daf ko ne koy mu ne ko wa aaniika yow laa ci nam waxuma kenn wa aaniika yow laa namm ci li may wax xayral alamina yow ki gën ci mbindeef yi wasilati yow ay jokkale sama mu nii lii dégg nga ko yow aji jottali ma la dali yow mir rëhi bi ca bis bu tiitlu ay may yow yaa may may di bis bu bi nga xam ne gaa yëpp dañ say jàq ñëpp daaw di la man mata taxaw ci wetu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa tey yaman itam jaamuloo na ma forcé na ma xubbi ka bëgg la surtout mu mujj sax mu jëm di aji murumtu alal barri ci jéeri yi wal ajiwaa ak jaww yi aruumu di sàkku wi saalan egg ci yow bay fu mu masa dem rek yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo tax mu dem fa dégg nga mu ne ko faxaadartu ma gonge koo nag awtaani ci sumay réew suma dëkk yi ma jugee fa wa ahli ma jugee ci suma ñooñ wa usrati ma jugee ci suma njaboot bale ñoom ñëpp a juubu maa ngi xotti alfala xàll yi lam ashku duma jàmbat xattu kalaalan coon lépp yaa ma ko jaral yow yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg mu ne ko bi kawlax a ca kawlax tawran léegoo léeg aw bi yoofin yoof aka am chance aka am chance ba tudd ko ba sonn aw bi yoofin wala ca yoof wa marratan léegoo léeg bi barisa ca Paris nga xam ne daaril fasiqina ñooy kërëg fasiqiya ku saalan ñooy way tayal waaw Paris xam ne mooy asimatu France ku ko bàyyi ne moom nga déggoon bàyyi di wax waxam ju ba di ko reetaan moom Cheikh Ibrahima dañu déggee ñuy laaj xale bi dene alquran yàlla bawu ci dara dégg mu ne waaw defe naa boobu la de loo xam ma maa ngi doon déglu bu ko tontu rek ma tontu dégg nga mu ne mu ne suñ suñ pari gu rafet gii sax yàlla tudd na ko mu ne waaw mooy daarul fasiqi mooy kër fasiq yi yéen yéen fasiq mu di ko laaj foofu mu di ko wax xam loolu yéeme yéeme dégg nga bi baari sa daaril fasiqina kusaaran waa xaaral ñu eggale kii mu ne bibil jiga ca Belgique yow man bés su mayoo man topp bés te mbir mu may aji wandaalu ni di di di tukki jaw la bi qaahiratin ca qaahira ab rii fekk maa ngi sàkk ko foofe jamaalan taar taar waaye jamaal bi bàyyi mi ngi si jullu jamaal Abdou Nasser kon dafa jëfandikoo li français di wax théorie ak pratique ci baat bi dégg ko jamaal Abdou nga xam radiyallahu anhu ku fonkoon Cheikh Ibrahima defoon baay doomam hmm? mi ngi juddu la quinze dégg nga ko janvier mille neuf cent ko la juddu génn àdduna vingt-huit septembre mille neuf cent hmm. mooy ñaareeli njiit ci Égypte moom Jamal Abdel Nasser dégg nga ko la yéeg ci nguur gi ba keroog muy génn àdduna kenn ñemewu ko wàcce ndeysaan ku am teraanga la ndeysaan bàyyi ne hunaka jamala li abdul malik al qarni ci abdul malik may sant sang ba qad jitu laa dikk maw hinan ci digg guddi waaw loolu Angleterre la woon bàyyi ne wa maa londonan déet london ab xiilaay sàkku fa ba jàppal london xayaalan muy ay gént xayaal muy ay xayaal nii rek Abdou Malik goro la mooy papaay yabal xiis yabal xiis mu jur ñoom suñu yaay Umu Haani bin Cheikh Ibrahim Seydi Abdou Malik mii moo ko jur waaw Seydi Abdou Malik moom ambassadeur u Nigéria la woon ci London France njëkkoon nekk sax ba yàgg mu mujj nekk London ci soixante nangam yi. waa yabal xiis waa soxna bàyyi la woon waaw soxna bàyyi la woon waa Nigéria googu la dégg nga bàyyi radiallahu anhu man dégg naa ci nettali yabal xiis mu ne yoon bi baayam ñëwee boobu papaay ba ba ba Abdou Malik xamu bàyyi pare ki mbiri bàyyi bi dégg tam kiiwu ko daal neex ko neex ko noonu waaye mu ne abal xis mu ne keroog bi Cheikh ma taxawee seen kër lu yéeme la ba pare bi bàyyi duggee seen kër toog moom yaa bal moo njëkk a tànk ndox boobu ngi ne xale bu jigéen moo njëkk a tànk ndox may ko naan fekk am na boobu lu mu amee ci loxoom bi di ko lekk bàyyi jël ko doo ko ma xool boobu kenn waxu moom Cheikh Ibrahima <laughs> mu mu daal di ko daal di ko jël daal di lekk moom mu ne waaye nit ñemewu koo xool jàkk baay moom moom yabal xir mu doon wax mu ne jamono baay bi mu ñëw seen kër mu ne fi mu toll ci taar ak doole kenn ñemewu koo xool ne moom dafa toog rek papam ne ko dama laa may sëriñ bi dafay ànd ak yow dem kaw la ñu takk mu ne mu ne mu ne ñëwee bàyyi tegee lekk da ngay dégg sax mu nettali mu ne ko balxiis coob coob coob <laughs> balxiis coob ndeysaan ma ne ko anglais bàyyi da ko dégg dana am na ay baat yu mu daan wax ne bàyyi daana ci anglais mooy dafay neex ndeysaan xam ne Cheikh Ibrahima lépp la dégg radiyallahu anhu wa maa London wax na ne toog naa gannaaw gaye ba fajar di ñaanal Abdou Malik keroog bi baay Abdou Malick mi génne àdduna baay dafa ne Abdou Malick xanaa li mu ko ñaanal laatuñu fii waaw Seydi Abdou Malick ku baay fonkoon la radiyallahu bi baay waree faju en France euh, moom moo jëloon foofu fu baay war a ne ak ku koy faj yëpp waaye mu gi affaire bi ay kii dugg si moom mu mu ànd ak ñi nekkoon ci mbiri tukki mi te Seydi Mouhamadou Michiri ci la bokkoon ñoo ñu toxal bàyyi yóbbu ko Angleterre ñu ne ñu fi bàyyi waroon nekk Angleterre ak yëpp moom moo ko ñu ne moo ko toppatoo hmm. moom Seydi Abdou Malick ndeysaan bëggoon la ba pare moog bàyyi rawante wuñ comme comme misir rek ni misir yi ñàkk rawante ak cheikhul islam Alaaji Ibrahima Niass ci dem moom tam noonu la ñàkk rawante ak cheikhul islam Mawlana Alaaji donte moom lim rawante ak bàyyi ah kay moom lim rawante ak bàyyi na de parce que soixante-huit la génnaat na 68 69 70 71 72 73 74 75 juróom-ñetti at la rawanteeg Cheikh Ibrahima Niass mais faju bi bàyyi doon faju France moom ci la jëloon ci la jëloon kii waaw waaye yoon bii it bàyyi radiyallahu anhu jaaroon fa dafa fajal moo tax bàyyi ne wa maa Londonoon ab riif fa fa xëyala dégg nga ci la continué nag bi Bayruut ca Bayruut an xussiina ñu am ci bayit boobu bi Bayruut ca Bayruut laa jugee an xussiina di jublu China muy Chine dégg nga bi charqi ca Chine bi ci penk bi dégg ko xaw moom la ñuy wax Chine populaire xaw ma Chine ñaari Chine ñoo am Chine ak Chine beneen bi baa na bi charqi ca penku ba xaadiman mbir moom may aji liggéeyal rasula ilahi l arshi yonentub yàllaay borom ares yi waxuwa te moom yàlla dégg ko taala aji kawe waaw ndeysaan Beyrouth ca côté Cham la nekk côté Dimashq bàyyi bu tuddee dëkk léegoo rek daf koy daf koy leeral ba nga xam ne Amin Hussein mii fa la dëkk mufti Quds mufti Falastin waa Beyrouth la kon xaritu Cheikh Ibrahima Niass lool radiyallahu anhu waaye doon ku yéem bàyyi tam waaw ci jalti jalti yi nga xam ne Cheikh Ibrahima mi ngi koy def muy sotti moo tax keroog bi français yi moom Amin Hussein wala israélien ne dafay taal guerre seen diggante ak moom baa def ko ne ko d'accord mu ci de d'accord mu ci de man gis naa ne diine islam mën nañ ko xeexal te duñ génnee jaas duñ taal benn fetal benn bomb du jóg waaye gisal mu dëgër bopp uteeg bàyyi ci loola dañ ko jàpp bàyyi na ko man maay dem ko wax la toog foofu <laughs> waaw dañ koo jàpp buñ ko bàyyee ndeysaan après ndeysaan gannaaw guddaatul at fan sax ci la génn waaye Cheikh Ibrahima war na ko ne ko lii moo taxoon ku la ci somb ba nga sumb li Sidi xaaj Malick wax si waxoon gaay yi mm. Sidi Hadj Malick ko nee na taal xeer guerre mu mu bañ benn bis si buntu jumaam bi la nekk gars yi di wasifa yàlla ji commencé taw taalib yëpp daw dugg si biir jumaam ndox sax mënu mënu ko ngeen ne naa taal muñ bali ndox da nga bali fetal <laughs> ah taalibe dañ lay jiw ci mbir ba nga dugg si ñu bala ci dem dégg loolu la yal na yàlla may ñu dégg ak topp allahumma salli ala sayyidina Muhammad